ndeysaan mi ngi ñëw ci combat bi nga xam ne mooy combat spécial bi dox ci diggante Jokkel ak ki xam na moom mooy Prince Jokkel ma nga Kër Massar waaye ki nga xam ne mooy Prince ma nga bàyyi si xel ba gannaaw raay ndeysaan arbitre sifflé na Jokkel wan ñu kanam Prince wan ñu gannaaw ña nga presse ci Ole Guèye la jóge waaye kii di Jokal ci Papa Boy Djiné la jóge ña nga noonu paa bi mooy lëmba ci làmb ji mi ngi nii foog ñu wax ak moom ña nga noonu Jokal à gauche presse à droite diggante Ndaam ak Njool la ña nga lewtoo ndax dañuy xeex ndeysaan ngi lewtoo ndeysaan ñu ngi lewtoo ñu ngi leewtoo ndeysaan ñu ngi foqante baaraam Jokkel à gauche Prince à droite combat spécial journée claf finale Doudou Sané ak euh, Thiatou Yarakh ndeysaan

Jokal fayu na ña ngay foqantey baaraam presse dóor na ndeysaan ndeysaan Jokal dóor na ndeysaan presse ngi dóor jël na tànk ba jël na tànk ba da koy Prince daan na ko Prince daan na Jokal xale bi xale ginnaaw raay bi daan ko daan ko daan na ko daan ko daan ko jëli bu rëy Prince daan na ko daan ko jëli bu rëy dafa jël tànk bi dëj ko wan ko ginnaaw laa ilaha illallah xale yaa ngi noonu xale ginnaaw raay kii moo doon Eumeu Sène kii moo doon Tyson kii ki moo doon Fallaye Balde laa ilaha illallah ki doon l'an 2000 ki moo doon Aliou Mané xale yi raay ki moo doon Jordan ndeysaan làmba ngi noonu am ndaanaan feeñ na Pikine amati na beneen doom bu génn ndeysaan ndeysaan ñu ngi ñëw ci combat bi nga xam ne moo dox ci diggante Bib Diop ak Naaru Sokaas Bib Diop moo ñu gannaaw cant bopp bi noonu naaro ñu woon kanam ndeysaan suy na Bib Diop suy na arbitre sifflé na non tey indi na dara xaw ma nu mu dee waa tey tànk yi am na dara naaroo ngi arrière Bib Diop ngi avancé dañoo dagg lewtoo bi ca kaw dañoo tàllal seeni loxo na Bib Diop a ngi dox ci kawam. naaru bari na ñu fa mas a juumloo ci ay xale naaru wër na ko fa Bib Diop taxawoon naaru sukaar dem na fa waaye taxawul ba léegi ma ngi koy wër naaru sukaar sa koy wër naaru koy wër waaye Bib jóob daa dal ndeysaan naaru sokaas Bib jóob na ngay lewtoo Dip Diop taal na loxo ba ca kaw day ndeysaan naaru daa bëgg a sàcc wala lu mu bëgg def taxaw na naka léewtoo am na lu arbitre tuus bi wax li ñaar sukaas takk la wala lan arbitre sifflé waat na bib Diop wan ñu gannaaw Naar Sogas wan ñu kanam bib am na lu mu suy ci kanamam daal di avancé Naar a ngi reculé bib Diop a ngi dox ci kawam bib Diop a ngi avancé mettul ma contre attaque bi wër na ko moom Naar Sogas foo bib Diop taxawoon fa la Naar Sogas bëgg taxaw na lewtoo léewtoo bib ar aj na garde ba ca kaw di dox ci benn tànk par benn benn lay def moom bib Diop day dóor wala day song jël na ko. naaru jël na ko naaru jël na ko da koy gitaar wala lan rëcc na jël na ko kal na ko daan na ko wala lan naaru rëcc na kal na ko da daan wala lan naaru indi na entraînement melul naaru indi na entraînement def na sorti naaru am na entraînement naaru am na lu mu indaale naaru am na lu mu indaale am na lu mu indaale naaru tànk yi am na dara Bib Diop jël na ko mu rasu daw génn loolu ci expérience la bokk ndeysaan ña nga noonu arbitre siflé waat na Big Diop wan ñu gannaaw Naar Sogas wan ñu kanam jàppante nañ bëre bëre bu neex daal di ñëwaat Naar Sogas jël tànk bi Big Diop rasu ñu daw jàppante daw génn saako yi arbitre siflé waat na Naar Sogas koy wër ma ngay dellu fa mu newoon fa bu Diop taxawoon Naar Sogas a ngi fay dellu am na mbër mu dugg si caatu yaraax la ma nga ña nga noonu Bib Diop ko da koy jël dóorante nañ da koy dóor jël na ko da koy dóor jël na ko Bib Diop takk na naaru rosu na naaru rosu na Bib Diop naaru sokaas ña ngay bëre Bib Diop ma ngay wëlbateeku naaru am na ngem Bib Diop ci sengoor jàpp naaru sokaas à gauche Bib à droite naaru téye na loxo duraatu Bib Diop ngir bañ uppercut Bib Diop mettul fàqatu naar mettul fàqat bi Bib Diop jàppul naaru jàpp na naaru ma nga jàpp ci devantiru ngembali ma nga jàpp ci dënnu ngembali moom naaru sogaas dañoo ndengeeñ taxaw ju déglu ku fàqat mën nga am dara ku jóor uppercut man nga am dara ku taf daw yéeg mën nga am dara ña nga noonu dañoo ndengeeñ dañoo ndengeeñ naaro rasu na la Bib Diop amoon deñ na la Bib Diop amoon deñ na naaroo jàpp Bib Diop jàppul naaroo jàpp Bib Diop jàppul naaroo ngi bëre bal ko dëpp na ko naax naaru bañ na ngembul naar tas na waaye arbitre bi bàyyi na ko ndax loolu ci kaw la ko tegoon ñaka jàppante ñoom ñaar ñaka jàppante arbitre loolu du ndengeeñ loolu du ndengeeñ jarul wax naaru lu mu def du ndengeñ ndengeñ ba romb na naaru jàpp na naaru jàpp na Bib Diop moo féete kaw naaru suuf ci suuf la féete Bib Diop a ngi dóor naar tel na ko Bib Diop jéggi ko naaru dóor na ko tànk da koy buux wala naaru am na ngemb naaru ndengeñ na naaru lim def ndengeñ la dafa jàpp ndengeñ dafa jàpp ndengeeñ arbitre sifflé jox avertissement wala lan avertissement naar am na benn arbitre sifflé waat na Bib Diop wan ñu gannaaw naar su kaas wan ñu kanam bëri nañ ñu tolloog juróom benn waaye Bib Diop ma ngay avancé ma ngay dox ci kawam naara nga koy wër naara ngi déplacé wu ndax bam ko ci commencé def ba léegi marqué na ay point moom Naar Sokaas moo tax ma ngay delloo bu mu ca boy ko bal jàmbur am na ci droit su la neexee déplacé wu gauche su la neexee déplacé wu droite li mu la arrangé rek ngay def amoo droit jox ko avertissement verbal ma ngay déplacé wu moom Naar fa bib nag nekkoon Naaru ma nga fa bib Diop da koo cadré nee ko dellu fa nga newoon. am nañ avertissement beneen pour naar ma nga noonu mu ngi dox ci kawam su naar lu génn saaku yi làmb ji jeex troisième avertissement bi ak deuxième bi normalul bib jooba ngi dox ci kawam bib jooba ngi dox ci kawam ndeysaan koñe na ko bib jooba ngi dox ci kawam naaro ngi laa sew arbitre sifflé na jeex na disqualifié arbitre bi sëfewul combat bi baare Diop gagné na